مكة أفي ولا بقام مكة تما مكة نصها جنب بابا شم يبتدي أفنكو اسم تلك الجبال جتوه يولي دج لما دج لولي موي فاران مو بيان مو دج مكة با مكة جبت من يوح فاران نخل خد جو ينك وجاء دكنا في سفر أشياء كي جبلا مو أشياء الإصحاح الحادي والأربعين al isha dañ ko waxe turu yi day mëna laye nga wax laye ci alquran mom la xaw arshati ci man ayu taxal jasa ay ri yéen duni min ili wal tujaddid te na yeesal al qabailu giir yi quwatan doole yaqtaru do ngir ñu jage su ma yatakallamu top ñu wax li na taqaddam ya, nan avancé nan jiitu ma xam doole ilal muhakamati jëm ci atte ga man ka nga xam ne urxiba jubaleef na ko minal mashriqi ci penku allasi ka nga xam ne walaaqi dana taseen moom ak nasara ndimbal xindiri ci lay fa ñaari tànkam xam ne du fi na ko amaama xoo ci kanamam amaman ci jege wa bu fekkee dañ caa rek ak nguur xalaa mulookin ci ay buur naa nekk nag wasallataxoo te mu xiir ko xalaa mulookin ci ay جعله دخنلين كالترابين كسوف بسيفه كجاسر وكالقش المنذري لكي القش المنذري بخاسه كخلاب طردهم من داقه مرين سالم بن أجبت في تاريخ كأيوان لم يسلكه وخم يصابوك برجلي كنار تاكم تركيبنا بعد بجرب نح من فخر ولا من فهم واي من فعل دال لي نور اي ام تي نور وصنها تم دفر داهية اجو الاجل الاجيال خيتي ولا ماسي من باتي تكو ماس ما با تتاملي با انا من الرب ما يدور بي الاول بجك وانا تمن خو ما يدور مع الاخرين انك جفرس Thank you. booba day seet nag daa mel ne mboolem xeeti tarjama yi ne moom la ñu tarjama lu xeeti wax yooyu wax ji na lëndëm ba daanaka doo ko mën a xam moom di ko rek waaye daanaka wax yi ñu fi doon leerul leerul nga mën cee wax lu wóor teew na daal wala muraad la ñu nam bil ci giir ci giir yi xabaayilul xarab mooy giir arab yi wa saaxibu ji wal xaw si ak xala gi xoo moom alayhi wa ndax fa inna xisa naka hisa, lam yu xaarib musta aslan ci benn yoon aslan ci cosaan tarjama ji daal loolu waaye neen daa bëgg wax ne giir yow mu tudd yépp naa nañu yeesal seen doole yooyu yépp ak di tudd borom jeesi jeg borom xale yi mel ni moo gañe moo yépp nee muhammad lay ju ndax isa moom ku ne waxu ko ndax isa moom musta xeext musta woor lu jëm ci xeex wa jaa dikk na fil faslu ba الثامن الثامن عشر بنك فكم جرمتين من الكتاب الخامس كي تير جرميل بي من شفر التثنية كي جنبلان تثنية لأن الله نك يالا تعالى كوانا قال وخون لموسى نيل موسى عليه السلام وقل وخل لبني إسرائيل نيل بني إسرائيل لإني نك من أقيم دنا تحول لهم نيل آخر الزمان كي بجب جمانو نبيا أنت مثلك كم يوم من بني إخوتهم كدوم سين بوك ne boo xoolee alkitaabul xaamis ci sifru tasniya ci faslu ba nekk fukki juróom-ñetteel da nga ci gis lii Moussa wax ban Israël ne leen bu neewu mu jub jamono dana am ku ma taxawal suñu wax Moussa ne ko waxal ban Israël ne leen bu neewu mu jub dana andi kenn ku taxaw sa taxawaay mel na yow waaye daa ji teg nag min bani israatihim ci doomi seeni mbokk ñëwul kenn ci ñoom ci doomi seeni mbokk la wax loolu yi bëgg a leeral nag wa kullu nabiyyin bëpp yonante bu xisa bëpp yonnees na ko baax da Moussa ci gannaaw Moussa kaana nekkoon ñu bani Israila di bokk ci bani Israil wa axiruhum te aji mujj seen Xiisa mooy Xiisa alayhi salaam falam yabxa comme desut yakkoonu bu nekkee min bani israilihim di bokk ci doomi seeni mbokk illa nabiyuna ndare sunu yonante bi Muhammadu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li annahu ngir naka moom min waladi Ismaila mi ngi bokk ci doomu Ismail wa Ismailu te Ismail axoo Ishaq muy mbokkum Ishaq وإسحاق إسحاق جد جد بني إسرائيل موي مامي بني إسرائيل كن فهذه لي هي مهم الأخوة مهم مبقوغا التي كنا خمنا الأخوة مهم مبقوغا التي كنا خمنا ذكرت تدفنكو في التوراة في التوراة ولو كانت بنت نكون هذه البشارة بلي خبار بتي nabiyin ci benn yonante min anbiyaay bani israil ci yonante bani israil lam yakun kon du nekk di dikri ikhwatihim ñeel tudduk seeni mbokk maanan benn maanaa neena bu ko ne nabiyan mislaka min bani ikhwatihim rek daal muhammad tax mu wax ndax mboolem yàlla wóoni waat ci gannaaw muusa dañoo bokk ci bani israil ci boppam kon boo ko nga xam ne ba ci Isa sax alayhi salaam mi ngi bokk ci ñoom kon nag bu ne ko danaa yónni ab yonante boo xam day bokk ci doomi seeni mbokk min bani ixwatihim loolu yonante bi rek lay tegtale nga yonante bi mi ngi satoo ci Ismaayil te Ismaayil ak Isxaaq mi nga xam ne mooy maami waa Israayil yi ñoom ñaar ñooñu ñoo bokk benn baay muy Ibrahim kon nag bu ne ko danaa yónni ab yonante boo xam ne day doon bok ci doomi seeni mbokk waaw maanaam daal du bok ci yéen dëgg-dëgg waaye seen doomi mbokk lay doon loolu xam nga ne kon day daal doon rek yonante bi rek la mën a doon ndax mel moom dong moo dikk demee noonu ñi ko jiitu ñëpp dañoo bokk ci bani israel ci seen ci seen bopp kon nee na léegi tudd ne bani israel yi tegtal la ci ne muhammad tax muy wax yeneen ñi yàlla yoon waat ñëpp dañoo bokk ci bani israel ci boppam waaw kon ci jëmm jëleen bokk fekkoon loolu day kon du jar mën a am min bañ ixwati wa jaa dikk na fi kitaabi ruya ci téerib arruya al mansuba di kan ila yuhanna jëm ci yuhanna al injili fi safhati تسعة عشرة فصل رقم أحد عشرة يعني حين في الفصل الحاد الحادي عشر ما لو خمني نصر ويقم لي سمرأ يطوك مجيس السماء أسمان سي مفتوحة نور أبي وإذا فرس أمت مني أو فس أبو جوي أجويخ والجالس تأجي طوك يحاله تكوام أنام كوار تكوام يدها ديفن كوي أمين كنون صادقا كو أجي دقر ويحكم تمي أبت بالحدل تمانو ويحارب تمي خره وحيناو تنياري بتم كالله بنار من ملي تاك تاك السفرة وحالا رأسه تنك نتي كي جانم أي نبو asirat ñu bari wala hu te ñal ko ismin tur maktub mu di bind laysa ahadun dit kan yaarifu di ko xam illahu na remom ñana bo de xol kitabur ruya dañu askane yohanna ci xatu 19 fas mi ba doon 11 nga gis mu ne dama gis asamaan ci ubbiku am fas weex ki ko war nga toog ci kawam doon ñu koy wooy amin sadiq muy àtte ci maandu di xare ci yoonu yàlla ba àgg nag ci nu mu ko mu ne waxu naa ko foofee na xaala wax ne moom bu xaari bi dana xarante wala shakkat amul ni annahu naka moom muhammadun muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waxat kaanata nekkoon ni dafa ko wooye qabla risalati ci njëkk yónni ga bil amini as sadiqi ci al amin ku mu sadiqi ku aji dëggal kala kama na nan ko jitu won ci gënaaw ani na bok seetlo loolu dal sey bo japp ni muhammad do nah, nga mën jundju ndax muhammad moy ki nga xamne mo moo jihar ci yoon yalla tay mo moo leen daan wooye as sariq al amin njëkk sax ni ko ya, yónne ya. وجاء ذكنا في رؤيا وحنا اللاهوتي صفحة تسعة عشر فصل خامس عشر دكنا جمني ويخرج تدن جن من فمه تكي جمني سيف جاسي ما دنجي أجدك لكي يدل دنجر مدور به جنوم الأمم خيرية وهو تمام سيرهاهم خلصتنا لنسام بحسن جاوية min hadidin wu pay ko ci yom ñu ñuul wuute moom yaduusu dana deggate degg mi asarata khamrin narukaayu kayu sangra baat ji topp ba tey leer na ni ci pirim waaye ñu jappalo mi asarata khamrin tax man naam da ko wala day mi asarata khamri suxtillahi wa qadarillahi wala déet alqaadir yàlla mi aji attan xalaa kulli shay'in ci lim ne loolu na lay firi juraat lu ne min xawli famihi sayfun maadin ila axirihi huwa moom al quran karim li bàyyi ko ci gémmiñam mel ni jeesu ju dog alquran lay doon waxat dëgg na it annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam asarata xamrin melukaayu sàngara te ani dama jublu ñu ne annahu naka moom xarama xaraamal na alxamru sàngara taxriman ak araamal xat xiyan moo ko bu dokk saa loolu wax dëggaate nalukaayu sàngara muy araamal ko yonent bi doog a dog amaa Isa daal Isa fa xadra fa xadra waa nett xan fu jëli ci moom almasi katu bi ni ànd woon moom xala ba na xam xamri jëli ci ni indi xaa naka moom dama xoo deretam la

هذه النصوص يلي يخ المذكورة دين تبو في التوراة في التوراة والإنجيل الإنجيل ناطقة أجي تبلا برسالة محمد كي يومنت محمد عليه الصلاة والسلام لهذا ngir lii lamma kaana ba nekkee baxira baxira arraaxibi mi ab labe mutabaxiran di aji géeju fi xilmi nasraaniyati ci xam-xamu nasraan faqad arafa xamna annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa akhbarahu te mu xibaar ko bi risalatihi ci ak yonne min ma jala nga xamne ittalaha yerna di misal yene wax yi ñu mu feñ ci tawrat ak injil lu ci nek wone na yonante bi yalla wax na ci téré mu muhammad wal motax bahira mi nga jangkatu téré la te xóotoon ci xam-xamu nasaraan looloo mu teel a xam mandarga yonent bi xibaaroon ni yàlla dina ko yónni ndax rek lam gis ci ay mandargaam ci téere yooyu fa fiiha nekk na ca téere yu sell yooyu aw saafu foofu ay meloom alayhi salaatu wasalaam wa shay'un ak dara min ilhaasaatihi ci ay tënum wala ay waajalam wa mu ujjisaatihi ak ay muujisaatam téere yooyu dafa indi yenn meloom indi yàlla feeñal ci moom laata mu ak yoon nga feñal ci mom ko wone ba nopi wa kanat nekkon halimatu halima asaadiyatu mi ko jub saada taxaru digal digaral koy di wone an nabi yonante bi sallallahu alayhi wasallam ala yahudi ci yahudi wal kuhani ak jabari wa tuhaddisuhum tam len di netal bi sha'nihi ci biram fay arifonu ho tañ koy xam min awsafihi ci ay melom wa ahwali ak biram mu ne tam halimatu ko daan nampal do ko daan netal yahudi ak buxaama yi li ci yonante bi li mu ci Muhammad ko defee ñoom loolu ñu joy tegtaloo ne nar ku yàlla yónni waxad axbara xibaaroon na it bi risaalatihi ci yónneem alayhi yàlla nekk ci moom asalaatu wasalaamu waraxatut mu nawfalin waraxatu mu nawfal ibnu xammi xadijata mi doomi baay bu ndaw xadija wakaanata nekkoon na cheikhan di ak góor nasraan ñi yéen gu ko dug عندما أخبره بمكو خباري رسول الله ينتبي الله صلى الله عليه وسلم بما رأى جل مجس من الوحي جوحيك إذا قال بما وحي له يلقو نكو هذا لي هو من الناموس مي ملاكمة الذي ما خمني الناس لوجه ونكو الله يلا على موسى موسى إلى آخر ما بجي مجو لنغا خمني خالا وخون مما جل لنغا خمني سيأتي خلصتنا لك ذكره وقتنا في موضوعه جبرمم أنا بوكسر لو الخاتم الأول doomu baye bu ndaw khadija doon góor gu xóot ci xam-xamu nasaraan da ko yonente bi waxe lam gis ci xuntuma da ko dal di wax ne ko ah yow de nga gis mooy malaaka ma yalla da yoni ci mota bu ko defé sax gis nga dana indi indi net li boobu ci kanam xawta jàppal li waxad an dara xoppon al yahudi yahudi ko woon na al yahudi yahudi bi rasulillahi ci yonentu yàlla wi sallallahu wa sallam wa jàppal sax maa nga xam ne yaa dikk na fii sirat ibnu Hisham sax yëgari naka jëkk daanañ avertise di feeñ mu ne sax ñëw na ci sirat ibnu Hisham jàppal ñu jox kon ñu fàttaliwaat ne soo dooloo ci gannaaw ba jàng xarwul fijaar harbul fijaar mi ngi ci gannaaw dama amoon natt lu tuuti ci fa bind ba doon jeexe maanaam fa harbul fijaar doon jeexé waye gannaaw bi am nañ ci lu wor ci ne xam nga harbul fijaar ñu ko defoon moy quraysh ak ñu and ak woon ak wa khays ak ñu and ak ñoom waye kon am nañ ci lu wor ne ci njëlbeen nga xays ak ñu ànd ñoom ñoo ëppoon doole mel ni ñu gaaw gañe waaye ca Makka moom Quraysh ak ñi ñoo ñoo gagné bu baax a baax ca nañu jeexale xeex ba itam mooy dañoo wax ne na kenn ku ne wàññi ñu ñu rey ko defee ñu tolloo lim yi bu seetee kenn ku nekk ñu rey ci yow lim ñu ràkkati kooku kenn topp sa moroom ka nga xam ne moo ëppale lañ ko reyal lañ ko lu ëppale ñu jox ko diya waaw ñu tay bokk ron misal bokk na reyon nañ ci kee fanweer re ci kee fanweer ak ñeent dañu rakkati ko ñaari fanweer yi ko defee ñeent yi mu li kañ ko rey ci moom ñu jox ko ko diya nag léegi waaw xam ne fanweer ak fanweer yi moom kenn du ci wax dara koy bàyyi rek fanweer fanweer dee na fa ñeent yi ki ëppale na ñu jox ko ko diya loolu lañ mujj foofu ni na tamit day al Abbas noo koy maase waaye gannaaw bi gis nañ feneen ñu ñu maas ko nu tay latu nu tay latu mu dañoo dëggoon koy maase waaye gis nañ ñu maas ko nu tay latu muy ney alxabaas moom xabaas réeroon tam jaaxle ci loolu ni bu feeñee mu sàng kaaba ngi sooy te ba mu mu sàng ko sooy loolu gisoon nañ ko ci gannaaw bismillah indaaru yahudin xoppuk ay yahud برسول الله كيان تبع النبي صلى الله عليه وسلم خط الجمل جلو يهود يبلغ يغلن يا رجل ما سانجلك يجيب لك خط جوجو مش وحدثني نت لنا لنا حاسم بن عمر حاسم بن عمر ابن خطالته xam rijaalin jële aw góor min xaw mi ci aw nitam xaaloo ñu wax ne inna mimmaa naka bokk na ci li xam ne daxaanaa woo nanu islaami jëm ci lislaam max rahmatillahi ànd ak yërmande yàlla wa akum gindeem la naa ñeellu maa la nga xam ne kun naa nekkoon nanu nasmaaw di ko dégg min rijaalin ci ay góor yahuudin wa di ay yahuud wa kun naa nun nekkoon nanu ahlu shirkin di ñoom bokkaale وأصحاب أوثان تيرو خرم وكانوا نم نكون أهل كتاب دنون تيري عندهم نك في نيوم حلم خم خم ليس لنا أبو خم جت وكانت نكون لا تزال بدن بين سن دغنتي وبينهم سين دغنتي شرور أي أي فإذا نلنا نيم جتنا منهم في نيوم بعد ما لين لو يكرهون من سيب xaaloo ñu wax la na ñeelu ne innahu naka moom dulmoo bi xadd paqaara ba jege na zamaanu nabiyin jamonoy ak yonante yoon fa xatamat def na ko wàññi al aana léegi naqtulukum danañu leen rey maa xoo ànd ak moom tala xaadin kenn reyu ko xaat boo iramin ak na mu kasiran bari bari maa lu jéggi dayoo ci bari nas ma aw daalika loolee min hum ci yoon ibnu isxaq nee ku ñu wax xaasim bu xamar ibnu xataada nett na ma jële ci aw nit ñu bokk ñoo xam ñoo xam ne ñoo bokk ay mbokkam la ñoo bokk aw nit ñu ne ko man day gannaaw bu nu yàlla gindee ci lislaam lu ci gën a gaaw a tax a dem mooy dañoo am dañoo bokkoon nekk ak yahud yoo xam ne ñoom jàngoon nañ téere yi ba xam ne am na yonente bu yàlla yi bëggoon ni ci mujj jamono ñoom nag kan di jaamu ko di xelam rek ñoom na baleen ma sa jekku ba am wenn xale day ne tukk ne waaw baax na am na jamono am na yowante bu yàlla bëgg a feeñal su dikkee na mi nga xam ne gëm nanu doon nit yàlla dañuy ànd moom rek moom yowante boobu feeñal dañuy ànd moom dañ seen kaw rey leen yàlla dimbale moom rey leen dañ rey woon xaat ak iram dañ waral nañ ko daan dégg ci ñëw far ñu koy wax du jeex loolu tax na nag falam maa baxa fa ba yónni allahu yàlla ya rasulahu wa yonanteem bi ajabnahu hu wuyu ko da hana ci waxtu wa waxe ila allah jami ci allah wa xarafna te nu xam la nga xam ne kaanu nekkoon nañu yatawaxadoona naa dinu tëkkoo bi ju fa badarna hum te nu njëkkanteeg ñoom ilayhi jëm ci te bi fa amanna naa te nu gëm bi ci moom wa kafara te ñoom ñu weddi bi ci moom nee ndagam dëgg ñu da wax loolu dana ko yonante ci woote rek moom dal di gaaw ñoom gën ko andal ak da ndax ñu waxoon len leen jàng na tere te gëm na yàlla kon nag bu yàlla wane kenn ba ni dali gaaw ànd ak moom rek ñëw na dal ci seen kaw ñoom ñu ne nee na naka ko gëm wax na ko ba tàyyi ñu sax wa fihim na wàcc haadihi ayaat yi ñuy laaya nal baqarati ci baqara booy jàngee baqara mën naa wala maa jaahum ba mu leen min indillahi bakkakeenu ko yàlla musaddiqun bi aji dëggal limaa ñeel la nga xam ne ma xam an naa ñoom wutee taarat bi yoroon wakaanoo te nekkoon nañu ñëw min xam lu ci bu jëkk yastaftihoona di sàkku ndimbal xalal lu fay ci kaw ñi nga xam ne kafara wat nañu nee na ba nga xam ne alquran ñëw na dëggal la taarat andi woon te ñoom sax fekk nañu xam ne alquran dina ñëw yonante bi dina ñëw dañ daan tukku sax borom xirami yeeg naa leen bu yonante bi ñëw rek yalla rek dal dimbali mu and mom dal seen kaw lepp lañ ko doon wax waye fa lam ma jaa ba mu leen dikkale ma la nga xamne arafo xam nañ ko rek kafara ñu wedd bi ci mom fa la'natullahi rabbul yalla al kafir nek na ci wedd yoyu waaw neena nak li nga xamne xamal nañ ko naka jëk jang ko diko sentu bu ñëw rek seen yoon te fañ te bokk ci yoon rek bokk ci arab yi dal di tax ñu dal di koy wedd tax mu yalla rappelé xaala ibnu Hisham ibnu Hisham nee na yastaftihoona jooju mu wax mooy yastansiroona di sàkku dimbandiku sàkku ndimbal wa yastaftihoona aydan dana firi yataxaakamu danañu àtte wonte waaye lu oyo feeñ ci maanaam laay ji moom mooy yastansiroona mooy boolante woo feeñ rek nu ànd ak moom yàlla boo leen dimbale sàkku dal ci seen kaw yéen ñu weddee wa fi kitaabillahi nekk na ci tere yàlla taxalaa kawe na ne rabbana yow sama borom iftax yàlla nga atte bay naa sun diggante da xaw ne ak diggante sunu nit bil xaq ci dëgg wa anta te yow xayrul faatihi na yaay ngën ñi way atte ñi ne wane ne yastafte ko bay dana fay atte ndax faatihi na jee ak iftax jee ci laay joo maanaam atte laa mex قال ابن إسحاق ابن إسحاق لنا وحدثني نت لنا سالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ابن محمود ابن لبيد ابن عبد الأشهل عن سلامة ابن سلامة جلجي سلامة ابن سلامة ابن رقش وكانت نكون سلامة سلامة مومو من أصحاب بدر نبقجي وبدر إسحاق نانا كي وقت صالح ابن إبراهيم netti لما ma te boo ko toppee lépp mu nga bàyyi ko ca kuy wax salama te salama moom far na kaana nekkoon na lanaa dinu ñeel jaarun dëkkandoo min yahudin ji bokk ci yahud fi bani abdul ashal ci bani abdul ashal xaala nee na fa xaraja te mu génn moom dëkkandoo boobu xale naa ci ñu amoon benn bis min baytihi bàyyi ko néegam xataa waqafa ba mu taxaw ala bani abdul ashal ci giiruk abd bani ci giiruk abd ashal xaal xaala salamatu salamatu neen wa anaate man yow ma isin bis boobee min ahdasi man bokk naa ci gën jaa ndawee ñi nga xam ne fii nekk nañ ca sinan ci at xaala yi nekk na ci man burdatu menn mbubb li ñeel ma aji sama ñañ wal bahs ak dekkal ga wal xisaab ak xisaab ja wal misaan ak balaas ba wal jannat ak àjjana wal naar ak sawra xaala nee na fa xaala te mu wax ne daalika loole li xaw ma ñeel na aw nit ahli shirkin ñu di ñoom bokkaale yàlla asxaabi aw saanin te waroomi xeram laay raw na ñu gis ne ànd baxsan naka ak dekkal kaayun aji am la bax na ma wut ci gën a faatu waaw nee na salamata daa wax ne non day dana amoon dëkkandoo boo xam ne mi ngi bokk ci yahood ci bani abdul ashal am benn bis na yahood boobu dal di ñëw ñëw ba ci man salamatu ni ko net ni ko net nee na man boobu xam naa ni maa gën a doon gone ci foofa boobu nee na maa ngi yor saabu bi nii tëdd ci ëtt bi waaye nee na suñ bokkum yahood moom daa tudd bis penc tudd dekkal baag xisaab yaag place ba ñuy koy su jëfee ak dina sawara teg ca ne lool nag koy bokkaale yàlla ak jaamu xeram nanguwut ne ëllëg dekki dekki dana ku gëmul loolu yaa loolu te loolu te loolu wax wax nekk way xàkk ay gore yooyu yaa ndax da nga gis xeer lii kaa inu muy aji am di ànd naa sa naka nit ña yow fasoon def na dekkal baax dama wuti ci gannaaw seenug faatu ilaa daarin jëm ci kër fi xaagu nekk na ci jànnatin àjjana wa naarun ak sawara ñoo gisaana te def leen fay fii xaaj kër googee bi amaalihim ci seen jëf dina ma waxee ne ñu ne ko ay diw ndax ndax loolu moos dëgg la suñu toll nii gannaaw buñ faatoo am na beneen kër goo xam ne am na beneen penc boo xam ne yàlla dafay dajale nit ñi fay leen seen i jëf ñoom yóbbu sawara ñoom yóbbu ajana ñu ne ko ndax ndax loolu moos dëgg la xaaral mu ne ndax waaw wala si ginnaaw ci nga xam ne yoo xam ne fa def na waat bi ci moom wala waat da te siiw na te ànd la naka ñeel na bi xas dëgg ci wàllam min na min tilka naari ci woowe sawara ahdamu tandurin gën jaare fi daari ci kër ga yaa wax noonu xoo danañu suma yu duxi noonu xoo topp danañu ko dool yaa moom fa yu tayyi noonu xoo te ñu koy sakk te ñu koy raax ak ban xale bi anen jowe ci mu mucc bi kan naari ci wowe sawar xalan ci ëlëk dañ ko xamne kon xam mos ëlëk aji na ak sawar amna te ku nek sa yow ñu fay mu wat na ne day nit ñu sawar sama forne bi forne bi gëna bay ñu dëgg ci nit dal koy sak ba nga xamne am fenn fu fu dara mëna jaar ngelaw mëna jaar dal koy jëw ban mel ni ko koraax ba mel ni dal dara mënu ci dugati bayiko ci biir ne leen loolu yoon mu mo gëna sedd fa loolu la ku jotoon ci loolu te ci ak na jox leen loolu. Hmm. kee nag boo ko dee maas da ngay jàng azama tannuurin azama lisimi ànd ji nga weesu azama maas ko fata ci kaw maanaam mooy lisimi ànd na fa xaala ñu wax ne foo ñeel ko ne ko way xakk ay gore yow yaa fulaana yow diw fama aayatu daalika ana luy màndargam loolu من نحو هذه البلاد وبايكوتي ولوك يلريو وأشار تمتعي بيده جنهم إلى مكة جمعك واليوم اليمن لأنك وعلى وجه تكتل من أمنيان تبنيان من بايكوتي بروي سألتهم مكة اليمن قال منك ومتى تراه أنا كلمة في جسم xaala mu ne xaala salamata nee na fa nazara mu xool ah, may gën jaan dawe seen ci man ci at fa xaala mu ne yestan fidd dem na jeexal xaadal xulaama si des ngóor rek fu mu jot ko hmm. dañ ko ne waaw loolu kañ nga yaakaar ne ci la yonante

nu ma ban a nu wax ne ko way xak réew yaa fulaan yow diw ka nga xam ne xulta waxoon nga lanaa ñeel nu fiiru ci yonente bi ne maa xulta la xaala mu ne bala ankay walakin waaye lay sa diñu du moom tey dañ ko ne waaw xanaa du yaa nu waxoon feeñ na am yonent bi nangam ak nangam mun noonu tax gaaw gëm ni yow nag mu ne maa ko waxoon de waaye kii du kooku قال ابن إسحاق ابن إسحاق لنا وحدثني نتلنا حاسم بن عمر حاسم بن عمر بن خطالة عن شيخ جل جبور من بني قريظة وبوك بني قريظة قالوا منه قال وخنا لي نيلما kaana la nekk